waaw dafa modernisé dafa seqal bi tuuti moom la ñëw ñëw moom fi mu baax loolu kon ñëw ñëw dafa doon taw. coono ñëwee Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima daal wax ñëpp la xam. jaajëf Ibrahima xam nga rek xooloo seetlu na lii la doon gën. waaw ndeysaan ab dëgg yu jóge ko. Gambar mana? Kebak. Kamera mau siap di muka lagu. Dekat dengan orang seberat. Kamera mau bikin siap di muka lagu bikin. Bikin di, bikin di film. Kamera mau mana saja? Yang nama di kamera. Dari dari dari. Dulu deh. Kalau sama xol sedd na lool lool lool jërëjëf di naan jër di naan jërëjëf sëñ Touba rek ndax lii nii wax dëgg yàlla mu fa mel ni sama xol sëñ yëpp wane na Fatick yëpp ay ay murit lañu Fatick yëpp siin yëpp ay murit lañu ñëpp sëñ Tuubaa lañu yaakaar boo gisee mobilisation bi nga xamante ne moo nekk di suñu ginnaaw ci kanam ak yëpp nga xamante ne te suñu xol tëdd na lool lool lool lool lool jërëjëf sëñ Tuubaa xanaa di sant seen rek di ñaanal sëñ Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na yàggal ko fi ak ak sëñ Jëmb Fall ñu sant ñëpp di gërëm waay waay sëñ bi lii moom sama xol sedd na ci lool lool lool jërëjëf sëñ Touba. bés bi moom naanaka bésu cant la rek ndax naanaka kuy yëg sëriñ bi ba bés bii ñëw tey yaakaar naa war ngaa am mbégte bu baax a baax a baax kii moom day wonewaat kennum sëriñ bi rek waaw ñu war a góor góorgóorluwaat rek gën a santaat sëriñ bi bu baax a baax te xam ne bu dul woon moom. daanaka kon lislaam dana jeex ci àddina kon bu ko defee ñoo xam ne jërëjëfu sëriñ Touba boobu mooy jaamu yàlla rek ndax sëñ Touba léppam jaamu yàlla mosa doon kon képp koo xam ne da ngay naan jërëjëf borom Touba liñ ci ca war a jiital mooy fexe sàmmoog sa diggante euh, sa sa ak yi nga xam ne moo war sa digganteeg su suñu borom. bu <laughs> fexe aussi sa sàmmonte ak yi nga xam ne moo war sa sa diggante ak jaamu yàlla bu ko defee rek ah, ñu gën cee góorgóorlu te xam ne sëñ Touba moom mënuñ koo fay xanaa di ko sant rek di naan jërëjëf borom Touba rek jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba barke borom Touba. Bagor gel, bagor, bagor. Şimdi jërëjëf jërëjëf ak sa jërëjëf bëgg nañ noonu da lay ziar maam waaw di sant gannaaw bi ngeen sante gërëm leen sant ku tedd ki tey ah, ñu leen di laaj lan ngeen yegg ci bés bi tey nan ngeen gisee bés bi caravane bi nga xam ne sëñ Sidil Moxtaar yebal na ko tey fii ci diwaani Siir fii ci wàccaay magal gi tey nan ngeen gisee tey bés bi maanaam ñun murid dañoo amul ku dul sëñ moo tax maanaam sëñ bi dañoo war a jaral lu ne ah, te yaakaar naa képp ku gis mbooloo mi rek di xam ne tey Fatick bi mobilisé nañ maanaam dëkk yi ci àll bi dëkk yi wër yëpp ñëpp mobilisé nañ ñëw ci caravane bi yëg ci bés bi waaw yàlla baax a baax a baax a baax ndax sin dafa am tey lu kawe kawe kawe suñu jort sax woon sëñ Tuubaa waaye kontaan nañ baax a baax sëñ Bamba moom ca kaw ca kanam rek waaye kontaan nañ bu baax a baax a baax barke Xaadimu Mustafaa yàlla ñu ko fekk ay baax a baax a baax barke sëñ Maam Xamsa Seex Sidi Muxtaar yàgg fi lool ci wér barke sëñ Tuubaa Seex Abdoulaye Wade jërëjëf sëriñ Tuubaa dimbali Cheikh Ibra daf ñoo dimbali ndax lii lépp moom la bala ay sax Cheikh Ibra daf ñoo dimbali ndax li lepp mom la contane ci bés bi ndax amuñu lu Serigne Touba amuñu lu Serigne Touba Serigne Touba lañu yaakar tay ak ëlëk Balla sax dam kenn du mom billahi wallahi mom kenn la dañoo contane ci bés bi ndax nak képp kuy julit lay waxu duma ne duma ne duma ko yemale ndax Serigne Touba du tarixa Serigne Touba amul frontière Serigne Touba adina la Serigne Touba adina la li lepp mom la motax ñuy bëgg tay bu ñu toogee ba tal ko wala ñuy bége yàlla ak Serigne Touba yàlla ak yeneen tàmba ak Serigne Touba Serigne Touba taxawaayu Mouhamed rek la taxaw taxawaayu Mouhamed rek salallaahu alayhi wa sallam moom la taxaw ndax nag ñun xamuñu dara dañuy nii nettali rek waaye tubaar tubarkàlla boo xoolee ci mag ñi nga xam ne nii danga leen di déglu di taataan ci ñoom nga xam ne sëriñ Touba taxawaayu yonent bi la taxaw Serigne Touba moo yaatu moo xajal ñëpp. mënoon a yemale ci boppam mënoon a yemale ci njabootam def rek ngir jaam ñi texe dimbali jaam ñi rek sama xol dafa fees. maa ngi leen di delloo siyaar bi di bég di kontaan sama xol dafa sedd yokku ba yëg ko ñun sëñ Touba rek la ñu gëm soxna Astou Ba mii nag ñu nekk ak moom fii muy daayira Maam Jaara ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ndax ta ñun ñëpp tubaar fakàllaa macha allah moo ñu gindi ndax dañoo réeroon waaye ndokk nag bi ñu gindee nag. topp sëñ Touba ba mu jeex tàkk waaye jaajëfa Cheikh Ibra Fall laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaajëfa ay su dul moom fu ñu jëm. caravane bi siin ak Saloum dañ cee kontaan di xam ne rek waajtaayi màggal gi mat na sëkk ci sunu gis-gis sunu yaakaar ndax Sine gi bu melee ni ne yor ay taalibe murit lépp mokk na waaw. ñoo ngi ñaanal yalla sëñ Sidi Mokhtar yalla na fi yag te wër ak mbollem jullit mu nek ak sëñ Fallou mbub ak mbollem talibé mouride nek fi ak Mudir ñu ngi leen di ñaanal ñun ñun suñu xel dal na ne magal gi matna ba paré soñ suñu bop ba paré di soñ mbop mbollem jigen di waral ne liggéey bu reuy bi jigen na liggey de jigen mo liggey liggey bu reuy bi muy soxna Jaaratullaa Mariama ku ne xamna ne liggey bi yombul. ni Serigne Touba doone tànneef noonu la maam Jaara bu Buso nekkee tànneef ndax lii ku ne xam na ne lii yombul xam nga ne mbooloo mu tollu nii góor ak jigéen mag ak ndaw ku mën ak ku mënul ñëpp di jéem yàlla di leen dimbale ñuy dox lu du lu ndaw te ku ndaw liggéeyu ko kon li ñuy def mooy di soññu jigéen ñi sama mbokki jigéen kenn ku ci ne fa nga ne yàlla boole la sa borom kër rafetalal séyal te yàlla tax defal lu baax te yàlla tax ndax lu waay def lu ne yàlla fay la ko lii soxna jaara liggéeyal doomam ju tedd ji nga xamante ne àddina yëpp a koy bëgge maa ngi soñu sama mbokki jigéen ñi kenn ku ci ne foo ne na nga rafetal sa diggante ak sa borom kër rafetal sa diggante ak say dëkk rafetal sa diggante ak kulluhum kuy jullit ndax jigéen mooy jur ku ne mooy jur waliyu mooy jur xutbu samaan mooy jur président de la république mooy jur ilimaan mooy jur ku ne waaye ñun nag kii suñu royo yaay mooy soxna su tedd ji soxna jaara mariama buso may sonn sama mbokki jullit yëpp rawatina jigéen ñi kenn ku ci ne na nga fexe ba roy soxna jaara ci ay lu baax jëf lu baax wax lu baax du jëw du garam place dalu lu dul liggéeyal sangam bu tedd ba ba suñ borom fayé ko khadim rasulullah kon ma ngi soñ sama bop di soñ ñëpp kuy jigen na nga fas yéenee liggéeyal yàlla tey yàlla tax yalla fay la ku ligéel yalla mu fay la kon ñu ngi bégge bu baaxa baaxa baaxa baax télévision bi di ñaan yalla yalla jëm ci kaw ci kanam te yalla na leen yalla may wër may leen katan ba fu ñuy Serigne Touba yalla may leen ngeen taxaw fa ñu ngi ñaan yàlla caravane bi fu ñu ko dégg yàlla nañ fa dégg télévision bi ci barke Xaadimu Rasuul bëgg si lool waaw bëgg si lool si barke Won Touba dañ ciy bëgg lool barke si Bamba lii musa am Fatick waaw lii musa am Fatick bëgg si lool sant Serigne Touba wér waaw léegi sant Serigne Touba rek dool dool di sant Serigne Touba waaw yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba ak Soxna Jaara kontaan ci bés bi rek ñun ndax ñun waa kër maam Jaara dañuy liggéey rek ngir sëriñ Touba ak Soxna Jaara fu ne ña fay taxaw dañuy dem xel koom dañuy liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal Soxna Jaara fépp foo xam ne rek Serigne Touba woote na fa ñun waa kër maam Jaara dinañ fa teg sunu tànk ànd ak sunu jawrin bii soxna Astou Ba ñun xidmati maam jaara lañ tudd ku ne xam ne ne xidmati mooy lislaam liggéey waaw ku ne xam ne ne liggéey la kon ñun liggéey rek ngir Serigne Touba ak soxna jaara kontaan lool ci bis bi nag di ñaan sëñ Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg lool Mbàkke te yàgg koo taxawee ndax lii mbégte la lislaam bég na lislaam am na lislaam tey jogati na te gilla ak Serigne Touba ah moo tax lislaam jóg tey jërëjëfati Serigne Touba. jërëjëf sant Serigne Touba rek di santati Serigne Touba di santati Serigne Touba rek ndax lii moom ku ne xam ne ne Serigne Touba amul morom ndax sëriñ Touba ba muy dem géej yàlla la àndal ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba muy ñaan amul ku kenn ku topp ci gannaawam naan amin waaye bi xewal gi ñëwee àddina yëpp ñoo ko bokk mbiru Serigne Touba nag mbiru lislaam la mbiru Serigne Touba nag mbiri Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la lii nii ñun jullit yëpp ko bokk du murit du tidiane du khadir du layen du ñaseen ndax ñepp ñoy bëgg serigne Touba kon li ñu serigne bi defal ñu diko wajale magal gi nga xamantene jot amul ci magal gi bañu mëna xam serigne Touba lan mo waral yoon wi kon suñu defé li ñew fi fatik duñu def luñu sant yalla di julli ci bi di sant serigne Touba ak soxna jaara di ñaan ne li yalla na jëm ci kanam tay yaram dawna xol yu sedna xol yu toyna amul mag amul xalé kenn yegul dara lu rek sa xol fess del ba lo mën ci bes bi tay nga diko def di sante Serigne Touba rek di ti Serigne Touba rek di sante Soxna Jaara rek jërëjëf contane nañ bu baax di ñaan yal sax yal sax ci barke mam Jaara bu li mom ken amu lo ci wax tay Fatick yëpp genn région de département Fatick ñëpp a amul Njuujuuf amul Njongoloor amul amul fo xalat tay ci Fatick rek ñu ngi fi mouride fadig yeb ak ay julit sant nañ bu baax di ñaan li yalla jëm ci kaw ci kanam ci barke seigne Sidi maktar mbake na contane rek ci bëss bi sant Serigne Touba rek ak Soxna Jaara ñun man su waxuma wax na sama jër wi wax na ba pare waye xana contane rek di sant rek Serigne Touba mom yoni Serigne Touba mo reuy te yaatu te ñun murit ñun ñep ñoo bokk yëf waaw ñu ci sant rek xana comme serigne jëwrin wax na rek waruñoo am leen luñ ci wax sant rek waaw waaw ndax ku ne xam na ne Serigne Touba doomi maam Diarra la waaw kon nag ñu ngi sant rek ñun waa kër maam Diarra yi dañoo kontaan ba ñoo wax. gannaaw bañ sant yàlla te julli ci Seydina Muhammad ñu ngi sant suñu Serigne si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax lii tey neex na ci muy murit ba muy tijaan ba muy xaadir ba muy laayeen Cheikh Ahmadou Bamba ku xam jëfam jëf a fa mu jaar yëpp nam lekk lépp la ko nekkal kon ñu ngi sant yàlla day sant si sant suñu borom di sant Seydina Mouhamed bu baax a baax a baax yàlla ñu yàlla defal jàmm suñu xol sedd na torop torop torop torop torop torop ñu ngi sant bañ yàlla may ñu fekk ñu ñaan yàlla yàlla fekk ñu ko ay déwén ndax lii sag siin la sagi siin la ndax lii bu am Fatick tey ji dafa doon siin sant ko yàlla bu baax ñi ngi sant yàlla sant suñu jëwriñ di sant murid Fatick gépp di leen sant yéen ñi fi ñëw tey jërëjëf ngeen jëf Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar euh, digle na mbooloo mi dégg nañ ko digale nit ñu bennoo defe naa ne feeñ na ne rek bennoo na lii génn ci mbooloo su bennoo googu amutoon kon du mën a am. kon yëg-yëgu sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ne taalibe yi ak jullit yi maase nañ ci dégg ndigalal Cheikh Sidil Muxtaar loolu te topp ko. waaw kon alhamdulilah yëg-yëgu mbégte tey jii ni ñu ko gise euh, ñi ngi ci fatik wara def waxtaan wi ci kanam tuuti bi ñu agsee fekk nañ ñi nga xamne ño fi nekk ci kër sëñ Touba gi ak kër sëñ Mourtala ak talibé yépp ñu and meeru dëkk bi yitt euh, genn jitu mbolo mepp andando ne nañ wër ci dëkk bi li ni nekk lu am solo lo xamne ci sensibilisation magal la bok fenn fu nekk danañu euh, yëg ne mag kenn ku ne da nga laaj lu xew ñu ne murit yi ñooy waajal màggal gi loolu lu am solo la ci sensibilisation wu màggal gi. waaw ñu gis image Fatick yaakaar naa bu fekkee koo xam ne karawaan ak seegul ci moom dana laxasaayiwaat gën góor góorgóorlu moo xam ci at mii moo xam ci meneen la ca toppit mooy danañ ci yëgee dooley Serigne Touba ndax mbooloo mi tey kenn ku nekk ngi ci waxuma la dara waaye suñu gone yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun di dongay Al Azhar di wax laa ilaha illallah muhammadu rasul sallallahu alayhi wa sallam loolu lu ama ama am solo la te symbole l'islam la ba tax kon yaakaar naa ku ko yëg tey jii sa xol dana sedd dana wane doole l'islam parce que manifestation wala defile ci l'islam dafa am solo ci njëlbeenu l'islam yoon sallallahu alayhi wa sallam bu it masaana jot dafay digal jullit ñi bu ñuy julli si ñu jaar ci yoon wi suñu wàññi jaar ca wee parce que loolu dafay wane doole doole jullit yi lii tamit loolu rek lay wane yëngal murit yi nekk ci dëkk bi def bis bo xamne ñepp dañ koy yek nga xamne peut-être bu doon événement politique sax du mëna a ni nga xamne kon li ñu xam ci dëkk bi la ci gëna xum lepp da fay dellu si ci l'islam nga xamne l'islam lislaam yëngutu yëngatu yëngal dëkk bi kon loolu nek lu am solo lo xamne ne loolu daal lañ ci yëgagunu Thank you. Ahmad Bamba sëriñ Touba rek ay sëriñ Touba xam ne dafa liggéey yàlla fay ko tey jii nag ñun waa Fatick ñun ñëpp génn nañu ci kër yi wàccu nañu lali jox ko gani ànd ak karawaan bi dox ak ñoom di sant sëriñ Touba rek di sant sëriñ Touba rek te sant nag jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina. caravane macha allah macha allah vraiment moom euh, li ñu ko nemmeekoo ci cinq ans yi loolu la ñu gisaat fii ci Fatick Fatick vraiment desul ginnaaw. ndax boo koy xool daaw xam nga ah, li ñu gisoon mooy eh, dëkk yi ñu jaar yëpp dañu wane seen bopp tey euh, lii ma taar Ba def loolu la Abdoulaye Wilane defoon ca Kaffrine noonu la ñu gisoon ca Tambacounda kon mu mel ne daal euh, sëñ Bamba li ñuy wax rek amul tànk ginnaaw euh, amul tànk ginnaaw tànk kanam rek am loolu mooy gën di firndewu ndax caravane bi bañ ko commencé yàgg na ren mooy juróomi at waaye yaakaar naa ne toujours dañuy gën di gis muy gën di jëm kanam li ma mën a wax daal mooy tey sëñ Tuubaa la warante na boppam daal